jërëjëf mbokku internet yi safoo di seetaan site bii di wasaare société ginnaaw ba ñu leen nuyoo ziar leen bu baax a baax tey jii nag ni ngeen koy gisee ñu ngi file ci Massa Yoff gannaaw nag accident bu metti bi nga xamante ne nii moom moo amoon ba bis boobu daal di lakk am ñu bëri ñoo xamante ne nii lakk nañ ci aussi looloo tax njaboot ji nga xamante ne nii dañ ci amoon seen benn papa boo xamante ne ni mu ngi woon ci biis boobu rek daal di ñuy woolu ngir joxe ay seede ci seen papa ji xamante ne moom moo fi daal di bàyyeekoo waaye waxaale wax ju am solo waaye aussi wax ju doy waar waar ci li nga xamante ni moom bi ba ñu gisee ki nga xamante ni moo di seen papa boobu anam bi nga xamante ni moom lañ ko gisee woon loolu nag sabab ñu ñëw fii ngir seet si ñi nga xamante ni moo di famille bi dañ leen di nuyu rek bàyyi ko bu leen ñu nuyoog mbokk internet yi safoo di seetaan site bi di wasaare société bu ko defee ñu joxe ay kàddu témoignage si seen papa jooju nga xam ne moom la ñu fi moom moo fi daal di bàyyeekoo ak li nga xamante ni moom la ñu daal di fekkee seen papa gannaaw ba bis boobu lakkee jërëjëf mbokk internet yi gannaaw nii lañ leen ko waxee ñu ngi toog ak nag kilifa gi nga xamante ne ni moo baay ba dami nga xam ne ñoom ñoo fii moo fi bàyyeekoo euh, ñoo bokkoon di liggéey fii ci marché bi dañ koy nuyu rek bàyyi ko mu nuyoog mbokk internet yi waaye mu daal di présenté wu moom lan la ci marché bi ak lan la woon ci Baye Bada gannaaw balaa ñoo ñëw ci kàddu yu seede yi kilifa gi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay asalaamaaleykum mbokki internet yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp leen ziare leen ñaan la jàmm ak xéewal di ko sàkku ci yéen di ñaan yàlla bool ñu defal jàmm ñun ñëpp asalaam naka la maa ngi tudd Yaat Wade euh, nekk président comité de gestion marché central bu Yoff Baye Diatloir di lañ nga ci Baye Bada mi nga xamante ni moom moo fi daal di ko waaw suñu Baye Bada nag xam naa ne wax ci moom euh, du yomb trop ci ñun. Mhm. ndax euh, ni ñu jaxasoo woon ak ni ñu demee woon nekk suñu kilifa. nekk euh, ci kilifa ay marché bi ci kilifa yi nga xam ne mhm. kilifa gu dal mhm. kilifa gu baax kilifa gu yaatu gu njaboote ñëpp xam naa ne moom. li ma mën a wax mooy lu métti dal nañu biñ yëgee accident bi dèjà am na lu ñu lu ñu métti xamuñu woon ne suñu waajur woowu ci la bokk ndax dëkk ba ma nga amee ma nga am euh, accident ba fa mu amee dëkk ba mu amee man fa laa dëkk di altu ndàngal ma lii ba mu amee exactement fa fa bis ba tëdd tool boobu bay naa fa ba tey njama la dëkk ba tudd juróom-ñeent def naa ko foofu. bi ma koy bi ma yëgee accident bi ma woo sama waajur wu jigéen di ko laaj xew-xew yi nu mu demee parce que ci rajo laa ko déggee sama waajur bi may nettali dama koo coupé ndax mitit bu mu sama xol metti ci ci mbir mi te boobu lépp xaw ma woon ne sama waajur woowu ci la bokk moo tax bi ma ko yëgee ci ngoon gi ma yëgee ne moom ci la bokk oh, soge na ma trop na trop ci man xam naa moom wax ji du man a sori ndax góor gi dafa nekkoon ku baax eh, te yaakaar naa ne marché bi nekkoon nañ fi ak ñu bari ñu wàññiku wala seen waa ji wàññiku ñu dem dox tax defar taxawaay taxawaay bu am solo mais c'est la première fois bi ma nekkee ci marché ba léegi nit wàññiku fi ñëpp benn kàddu yëpp benn la ñëpp maase àndandoo ne ku baax a ngi nii biñ koy ñaanal délégation bi jógee fii oto lañ fi luyee waaye ñi nga xam ne ni mujj mënuñu dem Tuubaa sax dañoo mobilisé wu ñoom ñëpp yéeg ci kaw woote njàngam alxuraan ñun bi ñuy woon wi moment bi ñuy dem Tuubaa di jaale ji foofu di fa teewal marché bi waa marché bi ñu ngi ci kaw di di ko wàcceel alxuraan di ko wàcceel kaamil wàcceel lañ ko kaamil jàng lañ koy xasida ñaanal nañ ko suñu borom te loolu musul am ci marché bi mm-hmm. pour pour wax la rek taxawaayam ak mbaax ku baaxe woon ak nekk nekk nu refet mu nekk woon ak ñun moo tax xelaat yooyu yëpp daw ci daw ci moom ci loolu xam naa damay wàccee foofu kàddu yi ndax xol baa ngi bëgg a sori balaa ngaa wàccee foofu kàddu yi gannaaw bi nga xamante ni gis nga accident bi ni mu fa demee ñii lakk boo ak melokaan bi nga xamante ni mel nañ ko nga yëg ka ne sa góor googu ci la bokk lan nga yëg foofu. waaw moo tax ma ne la mënu ci mënu ma ci sori waaw. mënu ma ci sori parce que wax naa la ne bi ma wooyee sama waajur bu jigéen di ko laaj. métit bi sama xol métti ba moom dama ko raccroché au nez man diglootuma ko ndax bëgg bëggatuma woon moom bëggatuma xam dara ci ci bi waaw pour wax la ni mu méttee woon sama xol waxuma la nag bi ma yëgee sama baay boobu ci la bokkoon kon kon loolu moom mënuma la wax mënuma la wax ni mu tolloon ci man waaw mënuma la ko wax li ma la wax léegi rek am ak ñëpp jàmm saa bu xëyee fi muy toog booy yéeg ci escalier yi marché bi ab seizième lay jël toog teg foofu toog mais euh, heure bu nekk ak ña koy ña koy fréquenté waaw même xale yu ndaw yi nga xam ne dañuy daw ci kaw marché bi am na heure boo xam ne buñ bu jotee foofu ñoom foofu ci moom la ñuy toog muy dàqanteeg ñoom di wax ñoom pour wax la nag ne la paa bi amatuwoon kenn kenn kenn ku mu amaloon xaar ma yàlla ci marché bi waaw boo duggoon ci peut li ngeen du ngeen mën a jël lu bari mais. su ngeen mënoon dugg su ngeen duggoon ci biir marché bi amul du am kenn kenn kenn koo xam ne ni dena wax le contraire à ce que li ma leen li ma leen wax nii waaw mu doon ko baax koo xam ne vraiment duñ ko mas a fàtte waaw. d'accord gannaaw bi nga xamante ni dem naak léegi mën nañoo ne ci ay semaine la war a toll daane euh, bi nga xamante ni fi la doon toog ci biir marché bi jamono yi yéen ñi nga xamante ni yéen a doon nekk ak moom di kaf moom naka ngeen koy dundee fi mu nekk nii ndax yomb na ci seen côté. non yombul mënul yomb yombul yombul ci suñu yombul ci suñu côté yombul ci suñu côté te peut-être euh, man ngeen jëkk a jot rek mais am na ñoo xam ne nii ñoom la gën a jege jegeñeel ñoo xam ne nii tout le temps ñu doon yendu ndax man au moins que su may su su ma xëy si dinaa ñëw su ma ko fekkee foofu dinaa ko nu dinaa ko nuyu si maag doomam ñooy ànd maanaam tëdd moo ñuy tàggale chaque jour ma maax moom ñoo bokk jiite marché bi maag doomam taala ñoo bokk jiite marché bi donc nous sommes tous ensemble euh, tëdd moo ñuy tàqale parce que moment bi ñuy wàcc 19 heures 30 pour dem sport maag moom ñooy defandoo sport donc ñaari salle yi ñuy fréquenté yëpp saa bu ñuy dem maag moom ñooy ànd pour wax la ne tëdd moo ñuy tàqale waaw donc euh, dama dama dama dama laaj mais am na ñeneen ñoo xam ne ni peut-être ñoom fi mu doon toog ak fi ñuy liggéey benn la xam naa ne ñoom moom bu àggee ñoom peut-être. dañ la mën a wax leneen loo xam ne xaj man àgguma ci. jour muy dem moom fii la jóge ci marché bi. ci marché bi euh, parce que euh, xam nga ñoom d'habitude horaire boobu ñu doon jëli Pikine la nekk te Yoff am na am na horaire mais ñoom à chaque fois bu ñuy voyager dañuy quitter fii ay deux heures du matin jël taxi dem jël ji horaire boobu waaw parce que horaire boobu moo moo moo gën a matale peut-être ñoom ñu ko bëggee. hôtel Orel boobu lañ daan dab. fàttali Orel bi mooy Orel bi nga xam ne mooy jóge Pikine di dem. mooy jóge Pikine dem Touba euh, la veille la jóge fi ay 2 heures du jël taxi dem jël ji Orel boobu. Mhm. dafa doon dem këram wala dafa doon jënd ay marchandises yu muy jaay. xam naa loolu ay doom yi dina la leeral waaw parce que ñun am nañu ñaari version yëpp am nañ da doon dem Touba am nañ da doon jëndi bagage waaye xëy na ay njabootam moom yi nga xam ne ñoom la tàggool ne leen maa ngi dem xam ne ñoom dañ mën a wax. ndax da doon jëri bagage wala doon dem këram. d'accord message bi ngay lancé jëmale ko ci chauffeur yi ndax accident yi fi mu nekk ni aussi euh, bëri na te saa bu ñëwee rek def njombe te faat bakkan ban message lay doon. waaw ñu am daal ànd ak seen conscience daal xam ne euh, dafa am loo xam ne suñu borom moo ko moom moo ko moomal boppam. maanaam moo koy joxeel boppam amul doomu aadama mënut a jàmbaare jàmbaare ba amal boppam ba am ba am wërsëg wërsëg suñu borom moo koy joxe quel que sa njàmbaarte quel que soit sa yaafus li nga war a am suñu borom moo la koy sédd donc te gis naa ne daal vraiment accident yi temps yi bari na lool te bariwaay bi tam toujours lu ci ëpp càggante chauffeur yi la. chauffeur bi nga xam ne nag moo yoroon bis bi ci témoin yi ma dégg dégg naa ko baax la woon ku waaw dégg naa ko mais daal ak lu mën a xew chauffeur daal nañuy def ndànk parce que tamit mu foofu mu foofu mu foofu mu accidenté foofu noonu kenn wo benn chauffeur woo fa doublé parce que xam naa liggéey bi bu baax su ma la waxee ne. bis bi tool bi mu daanu tool boobu bay naa ko ba taay su ma la waxee loolu xam nga xam naa fa mu fa foofu noonu même bu benn oto ñëwut kooku beeg foofu kenn waru fa doublé parce que tali bi dafa sew dafa xat waaw tali bi dafa xat ba pare dafa dafa amul es amul kii amul amul yaatuwul maanaam dafa mbartal waaw foo wàcc rek da ngay da ngay da ngay daanu waaw parce que bu la foo xam ne dafa am suuf waaw su boobaa boo ma wàccee a def na neen mais boo boo wàccee rek da parce que tali bi nii la def. kon foofu moom vraiment chauffeur yi nañu ànd ak lucidité xam ne ay doomu aadama la ñu yëpp te itam mënoo daw a daw a daw daw ba jëlulu sa wërsëg waaw vraiment loolu moom maa ngi koy déplorer bu baax di wax chauffeur daal nañu nañu nañu dal daal nañu ànd ak dal waaw jërëjëf ñu ngi leen di jaale bu baax a baax di leen masaw waaye di bokk ak yéen tiis bi nga am ne moo dal ci seen kaw. jërë ngeen jëf merci merci beaucoup. Euh, sëñ bi maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. tur bi naka la. man Talla Diop. Talla Diop lan nga bokk ak Baye Bada bi nga xamante ni gannaaw ci fàttali accident bu metti bi nga xamante ni moo amoon ci diggante Bambey oto boobu nga xamante ni dafa daal di lakkoon mu daal di ci ñàkk bakkanam lan nga bokk ak waaw moo ma jur ma nekk taawam waaw waaw maa nekk taawam. gannaaw bañ la jaale sa papa jooju di la mosaw ci tiis bi nga xamante ni moo dal seen kaw aussi yan kàddu yu sedd rek nga mën a joxe ci paa bi nga xam ne moo fi daal di bàyyee ko. waa ginnaaw bi ñu sante yàlla nangu ay dogalam ba pare Baye Bara moom dafa nekkoon koo xam ne pour ñu wax ci moom moom géej la daal du lim ma jur moo tax ma koy wax mais dafa nekk góor goo xam ne góor yàlla la woon gëmutoon dara lu dul liggéey ndax ku xam Baye Bara xam ne tollu woon na ci as boo xam ni mënoon naa toog ndax am na njaboot gu ko mën a yor waaye gëm gu mu gëm liggéey ak bëgg gu mu bëgg a gunge njabootam moo taxoon da daan doomam fépp mën di toll te it ci loolu la nàmpatal njabootam loolu la leen gëm loolu lool la leen jàngal ba ni mu fi làqatu. ndax mën nga ñu fàttali sa papa jooju ñaata at la amoon. waaw am na entre 69 ba 70. kon mën nañ xam aussi ndax ci këram la doon dem wala da doon dem ngir jënd ay marchandises. waaw dafa fajaru woon pour dem jënd ci ginaar ndax moom jaaykatu ginaar la waaw dafa demoon dem jënd ci ginaar ay trois heures du matin moom souvent fils boobu daf ko doon koj buntu Pikine. mooy orel bi. orel boobu noonu da daan koj buntu Pikine bu demee buntu Pikine xaar ko fa mu jël ko yóbbu ko ñooñ ñu ko xam nañ ko bu baax. waaw ba yàlla def li mu def tey. naka ngeen yëgee ne accident boobu daal dina am te seen aussi ci la bokk. waaw loolu nag laal laaj na procédure bu gudd ndax ñun xaw nañ ko yéex a yëg yëg nañu accident bi mais suñu xel njortul woon ni moom ci la bokk ndax xam nga nit moom horaire yi ngeen tàmm di gisante horaire yooyu su jotul rek sa xel mun naa bañ a daj ni kooku am na gàllankoor dañ ko doon tàmm trois heures du matin la ñuy tàggu ci kër gi. ay 15 heures souvent jàpp 16 heures la doon ñëw kon pendant temps boobu ngay toog nekk sa liggéey da ngay jàpp ni kon moom ak seegul alors que ndekee yàlla def na li gën ba fa biñ toogee ba ba 16 heures gisuñu ko dégguñu ko ci lañu boobu yëg ngeen accident bi. boobu waaw boobu yi ci vidéo yeeg yooyu réseaux sociaux euh, ci la ñu woote ci numéro mais jàll ñu woote waat jàll ci la oo koo xam ni. da daan moom di dem biñ jotee kooku tamit daf ñu xamal ne moom demut waaye nag su fekkee ne seen papa demoon na oto biñ doon yóbbu ñun oto bi daa def soog ci lañ daal di jóg nag nekkoon nañ ko dem wëri ji bali bali bañ gis ne daal moom ci koor yi la bokk quoi. d'accord bi ngeen ko wéree ndax jot ngeen ko gis wala. Hmm? bi ngeen ko wéree bi ngeen demee gis ngeen seen papa. waaw jotuñu ko gis ndax bi wëree fi ñu war a wër yëpp dem cees Thiès yóbbu ñu njaareem ñu dem njaareem njaareem tamit ñoom li ñu xamal mooy ki ñuy wër moom buñ ko gisut ci ñi nga xam ne nii ñoom ñooy victime yiy dund nañ jàpp ne koor la parce que njaareem ñu fa ñëw ñëpp ay koor la ñu ñëw xombal waa xombal tamit xamal nañu ni kon nañ bàyyi bu huit ñu fanaan ci sapeur pompier yi bi ñu xëyee tamit jëm xombal visité ñu gis ne même liste yi sax turam nekku ci ci xam ne kon moom moo ngi jaareem quoi. mais jot ngeen ko gis bi nga xamante ne ñàkk na bakkanam aussi. non jotuñu kaa gis dañuy profité sax ci occasion bi remercier état bi mais en même temps préfet bu njaareem parce que gis nañ taxawaay biñ ci taxawee xamal nañ ñu tamit ni maanaam koor yi moom mel nañu façon melin boo xam ne kenn mënu ko présenter kenn en même temps tamit mënuñu jox benn famille koor. waaw non fekk ñu ngi denc leen de li ñu xamelee loolu boobu ay huit entre neuf heures lañ njaareem ci margo bi ci lañ fa nekk ñu xamal nañu enterrement bi onze heures lay am ci kilifa yi nga xam ne bi ne ne ñoom ñoo nekk njaareem enterrement bi jotul am onze heures mu ngi am dix-sept bi mu am tamit ñun fam yëpp ñoo ci yamandoo ci enterrement bi mooy gis nañ ni daal koor yi ñoo nekk nii ñu ñëw waa am na daayira bu nekk foofu ñu jàppale ñu ñu denc koor yëpp koor boo denc rek nga xam ni kooku yow kooku mooy sa mbokk mais doo xam xàmmee koor bi ak koor bële ne la hmm. déedéet jotu ñoo xàmmee suñu kooru papa waaw ndax melokaan bi mu meloon waa bari na parce que maanaam gis nga euh, faatu moom jombul kenn mais ku sañoon tamit sa mbokk bu faato nga mën koo jot yóbbu ko jébbal ko suñu boroom xam ne fii nga ko denc mais loolu mënul woon am mi nga xamee loolu mënul am nag yëg nañ lu bari ci suñu bopp parce que xam nañ ne euh, mitti na daal mitti na torop mitti na torop wallaay waa sama papa mënoon naa wax ne maanaam tey bu fekkoon yàlla waxutoon ne man man kese maa yàlla ma ne moom yàlla la woon ci man quoi parce que moom moo nekkoon suñu lépp moo nekkoon suñu wéeruwaay ba pare nàmpatal na ci ñu bari jàngal ñu lu baree bari loo xam ne bi ne nii mun naan dem na de mais incha allah rabi ñun ci yoon boobu la ñuy jël moom la ñuy continuer ak moom. waaw li ma gën a marqué sama moom bari na trop waaye demam gi tamit raw na ci demam gi ndax demam ngi béttee na te parce que parfois nga nekk ak kenn mu nelaw mais balaa muy nelaw sax. nga am benn yaqin ci moom ni kii kat mu ngi tàggatoo wala moo ngi def nangam mais sama papa yëpp amu ci ñoo nekkandoo ba ni mu tàggatoo ci fajar gi dem waaw xëy rek dem dem noonu noonu dem noonu loolu marqué na ma trop. du yomb du yombut surtout si ñi nga xam bi ne nii ñoom ñoo ko gënoon jege ci di samay rakk parce que boo xoolee liggéey man xaw na am distance ak moom tuuti man ci biir marché bi laa nekk. moom ci bitti la nekk souvent mun na toog semaine man moom dañuy déggante téléphone rek bala may ñëw nelaw na balaa may xëy ci tamit fekk moom mu ngi biir néegam mais ñi xam ne ni ñoom ñoo collaboré woon ak moom taq ak moom nga xam ne chaque jour ñooy gisante ak ñoom métti woon ci ñoom trop gis naa seen kanam ne métti na ci ñoom trop parce que jooy nañ ko jooy xool dëggantaan. waaw message bi moom mooy ñu xam ne mënuñu bàyyi tali bi gannaaw ba tali bi moom. ñun ak ñoom ñoo dëkk nañu góorlu ci ni nga xam ne noonu la ñuy dawalee ndax tamit ay bakkan la ñu yab te bakkan yi ñu yab bakkan bu nekk am na lu muy service famille famille loolu tamit nañ koy sóoraale bu baax malgré ñoom bëgguñu faatu bëgguñu faat kenn mais yi nga xam ne bi ne mooy waral ak yi di am ñu moytu ko bu baax mooy ñu jéem a récupérer bu baax jéem a xool tamit concentré wu ci dawal bi parce que loolu tamit moo am solo kàddu gu mujj gi mooy comme li ma wax ci biir wax ji mooy état bi ñu ngi leen di remercier parce que gis nañ ni seetaan seetaanuñ fa seetaanuñ fa kenn benn famille bi affaire bi amee ñëw nañu présenté nañu ànd nañu ak ñun ba armeel ya en même temps tamit ànd nañu ak ñun ba ci suñu kër yi waaw def nañ lépp li xam bi ne ni moo ci war yónnee nañ tamit ab somme boo xam ne ni pour famille la kon ñooñu gis nañ ni ñoom ñu ngi bàyyi xel askan wi waaw en tout cas yéen tamit ñu ngi leen di jaajëfal waaw Wassare TV parce que may ngeen ñu opportunité ñu mën a génn ci benn site internet pour wax li nga xam ne nii moom moo ñu moom moo ñu touché quoi kon ñu ngi leen di jaajëfal ci présence bi quoi jërëjëf. sëñ bi maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. tur bi naka la. man la Goota Diop. lan nga ciy bàyyi ba dam nga xamante ne nii moo bokkoon ci biis boobu nga xam ne moo daal di lakkoon rek. man doom laa doom laa maa topp ci taawam waaw. gannaaw ba ñu la jaale sa papa jooju di la ma saw waaye di bokk ak yéen tiis bi nga xam ne aussi moo daloon ci seen kaw ñu ñëw rek ngir taataan ay kàddu yu seede ci seen papa jooju nga xam ne moom moo fi bàyyee ko. waaw bàyyi moom yaakaar naa euh, maam li ñuy wax si moom maam ni ni mel moo ko raw ndaxte du man maa ñàkk mais yaakaar naa Sénégal ñoo ñàkk waa Touba ñoo ñàkk waa Yoff ñoo ñoo ñàkk waa waa région Kébémer ñoo ñàkk. parce que tey ku ñëwoon ci saras rek bi nga xam ne Sénégal gi ñoo ñàkk fu ne nit ñi jógee donc euh, nekk nekkoon euh, waajur wu tabe wu am yërmande wu nangoo boot njabootam wallaay tax dang-dang yi ba yàlla moom ko parce que am na ñuy wax naa doon dem Touba déedéet da da doon wuti ay ginaar si luuma Bambey xam ne dañu wax ne moom paa bi def doon dem Touba loolu nekkul information bu. non noonu fii la jógee dimanche ñoo nekk man ak moom heure yi 17h ñoo toog fële sama place di waxtaan mu ne ma euh, su ma demee lënd bi dootuma dem luuma boobu noonu nga xam naa boobu da doon tàggatoo si euh, si lënd bi man yéex naa ko yëg parce que euh, lundi ay quinze h si la ma ki muy nekkal di jaay ginaar. nga xëy rakkam la alaaji ne ma paa bi day doon na ñëw midi une heure mais tey dafa xaw a tardé ma ne xam naa biis yi la ñuy tardé fekk man maa ngi maa ngi seetaan sax Wassare TV ñuy image ñu naan am bis bu sogee ba tàkk affaire yooyu ma naan ah lii metti na mais Wassare TV de yaa neen yàlla jàppale. di ci di ci di ci di ci commentaire noonu ndeke sama waajuru góor si boppam si la bokk ba lakk ne ay weer 18 heures ñëwaat ne ma mais paa bi ba léegi ñëwul de ma ne ah non kon ma ne xaaral oo ko ma oo te 18 appel jot boîte vocale léegi ma ne oo luuma ba ñu ne foofu waaw ma wooyee tamit foofu ñu ne ñëwul ma laaj alaaji ne ko mais est-ce dugg si baara mu si baara la dugg ma ne ko non baara dafa def soog si laa jël sama oto nag dem Thiès ma demee foofu ñu ne ñu fii trois personnes ñoo fi ñëw mais ñaari jigéen benn góor après ñu ne ma da ngay dem Diourbel ma demati Diourbel ma demee foofu maa nga fa yegg ay vers 22 heures waaw médecin bi na ma fii ay koor ñoo fi ñëw mais koor yi dañu xaw a dañu lakk ba jeex kenn mënu leen xàmmee après ci lu ma ubbil morgue bi ma xool mais effectivement ay ay ay ay ay ay waaw waaw waaw. biñ la gannaaw bi nga xamante ne ubbil nañ la morgue bi ba nga xool ndax jot nga xàmmee sa waajur bu góor wala. Euh, ah non waaw gis naa daal ay. waaw kenn waaw image bu image bu doy waar daal waaw li jóge si man ñëwul mais franchement mënu ma la kii kii la kii kii la mais xam naa ne lii moom ay doomu aadama la mais mënu ma xàmmee waajur góor quoi après ci euh, li ñu firndeel que ne suñu waajur góor si la bokk mooy dañu dem dañu yebal xombal ñu demee foofu ñu wan ñu euh, liste bi ñeexante bi ne ñoom ñoo dund bi ñu ko wanee moom nekku si léegi loolu doyuñu ñu dem tamit sàppoor comme ñoom ñoo doon lii ñoom tamit ñu wàññi liste bi nga xamante ne ñoom ñoo dund après si la ñu waxee ne seen papa dafa bokk si suñuy décédé comme dafa newoon ci bis bi effectivement euh, empreinte bi tamit nee na ma waaw comme moom dafa dund nee dafa bokk si lii waaw parce que bu lakk bi amee am na am na am na am na ay euh, benn paa bu xamante bi ne moom teeloon na ñëw mais nee na ma gis na ñi lakk ni mais mënu si dara parce que dafa mel ne version yi bari na gaz la wala mais xam naa ne euh, ñàkk loo xamante ne mi ngi ci bis bi lu lu lu aflaame bis bi waaw parce que waaw. parce que man dem naa ba ci lee bi mais ma ba ci lee bi gis naa fa ay marmite ak ay euh, bégu gaz waaw gis naa fa waaye effectivement gis naa bégu gaz foofu gis naa fa tamit yinde maanaam mu mel ne ku doon togg añ wala kuy jaay ndékki waaw kon gaz dañuy firndeel na gaz moom. xam naa ne waaw parce que tàkk-tàkk bi dafa gaaw waaw sinon les témoins nee nañ tàkk-tàkk bi dafa gaaw trop trop mais waaw metti na daal en tout bi nga xamante ne dem nga ba ci morgue bi ñu won la mais mënoo xàmmee sa papa en tant que koo xamante ni doomam nga lan nga yëg foofu. Euh, waaw dama tuur ay xéewal nag dama tuur ay xéewal euh, tuur ay xéewal yu metti sax mais parce que sa waajur euh, nga waaw. man dem gi sax ma mën naa ne méttiwu ma parce que moom ni mu doon liggéeyee ak ñun ak ni mu doon liggéeyee ak euh, mbokku taalibe yi moom fa mu jëm ñun ragaluñ loolu waaw parce que xam nañ ne mi ngi àjjana parce que loolu rek la doon jëfee social dimbali nit ñi suñ kër ñoo bokk fi ñuy fanaan mais ba minuit deux dañ koy yee di ko laaj ay ndimbal yooyu muy fii Yoof di Touba comprendre ak Mbawor dëkk bi ñuy wax Mbawor fu mu dem social bi lu mu yor ci poosam da koy bokk ak nit ñi kon fa mu jëm ñun ragaluñ ko mais demen bi moo xaw a ñaaw moo demen bi moo bu doon tey sa waajur danga ko suul sax di ko ñaanal temps en temps waaw mais mais ni mu demee tamit waaw métti na daal waaw dañ koy jooy ba tey jii nii boo boo ma gisee nga xam ne euh, waaw gooto ma nga xamoon démb ak mi nga xam tey jii euh, waaw du benn quoi dama koy jooy ba tey jii nii parce waaw suul nañ ko rek Diourbel mais mënuma la wax ne kii mooy sama waajuru góor ko waaw parce que ni ma gisee kii franchement doy na waar trop daal doy na waar doy na waar kenn mënu ko imaginer quoi doy na waar waaw na waar trop quoi. li ma gën a marqué ci paa bi mooy euh, dëggoom ak julliteem waaw ñi cinq heures fu mu jotee daf ñu yee jóg leen julli moom boo dul julli sax daf lay mere ba pare doylu doylu te lu mu yor boo ñëwee gën koo bëgg mu jox la ko wallaay yar ñu si diine wallaay yar ñu si diine euh, wax dëgg yàlla paa bi daal waaw ñu ngi koy ñaanal rek fa mu jëm yaa ni ko gënal fa mu jógee quoi non man démb laa ñëw man mi wax yow nii démb laa ñëw mais démb tey jii liggéeyu yaa ngi gis ki ñaay ñëw dama naa la kii du ma xam sax maam daf ma dafa manqué parce que man la man la man la gënoon jege quoi fii la doon liggéeyee fii laay liggéeyee kon mm, daf ma jàpp quoi mën naa ne fi mu toll nii genn wàll nit laa waaw man gen wàll nit laa ko fi mu toll franchement waaw mais dañuy gëm yàlla rek te xam ne yàlla moo ko fi indiwoon moo ko moo ko moo ko jëlaat quoi waaw Euh, moom nag euh, mi 69 70 70 waaw ñun ñaar relation waajur bu bëgg doomam rek doom ju bëgg waajuram waaw am naa ay doom mais man moom dama dama dama féete woon ak moom bañ naka ba euh, màggal ba léegi def naa chaque jour rek daf may daf may dénk chaque jour rek daf may dénk chaque jour daf may dénk chaque jour waxtaan yi muy waxtaan ak man waxtaan lu dénkaane la kon moom xamoon na ne lii nii dina ko arrivé mais ci yan anam la koy arrivé mais xamoon na ne lii nii bis bii dina ko arrivé quoi yi mu doon dénk mooy euh, doylu waaw bul xool yëfi jàmboor du ah del julli waaw ndax euh, àdduna bi euh, maam yàgg na yàggul di ma dénk ñi ko ñi ko ñi ko dénk xaalis parce que comme kilifa la woon di ma xamal ne ma diw dénk na ma xaalis fii la xaalis bi nekk ak fii la nekk muy wax na ma léppam avant muy muy dem na ma yoreelu ma kenn nag benn dërëm yoreelu ma ko nit mais am na ñu ma dénk xaalis mais fii laa ko bind maa ngi ko denc bërëb temps te bi ma euh, effectivement bi mu nelawee troisième jour ma demee foofu noonu bërëb boobu gis naa ne fa la doon denc xaalis voilà. non waaw waaw waaw man moom man tàggu na ma ay multi reprises benn bu dul ñaar parce que wax na ma secret yoo xamante ne waaw du ma la ko wax kon kon tàggu na ma waaw na ma waaw. message mooy noo di tamit jaale famille Baara Baara eh, dafa bëggoon paa bi dafa bëggoon paa bi mooy chauffeur bi décédé eh, dafa dem ba bis bi wutal paa bi benn place ba bi ne dane paa bi moo ko moom Baye Bada danaan fii place Baye Bada la client yi lu ñu bari bari danaan fii place Baye Abdou bu fi kenn toog chaque dimanche si guddi trois heures foofu la koy fekk Pikine waaw biisam la quoi di jaale baare ak famille yëpp franchement metti na mais nag euh, yàlla baax na quoi waa waa sama yàlla baax na waaw ok di di tamit safoor yi ñu maanaam si sarse beeg yooyu ñu koy waa surtout quoi ñu koy wàññi parce que selon le témoin bis bi dafa feesoon bu ñëwee ba kaba jëlaat neen nit dolli ko si tamit affaire yooyu parce que bu am na nu muy fees rek su pneu bi tojee doo ko mën a doo ko mën a contrôler quoi ñu bàyyi si xel ndogal moo ñëw mais tamit ñu ba ñu bàyyi si xel daal waaw baax a baax waaw di jaalee baara bu baax a baax waa moo parce que xaritu paa bi la woon waa dama du ma noppi di ko wax baara xam naa dinaa fa dem tamit si famem incha allah bu neexee yaa dem seeti leen jaale leen jërëjëf jërëjëf soxna si jërëjëf soxna si jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaw di sant waaw waaw Wassare TV tamit parce que information yëpp daanaka man surtout yoof gi ñun daanaka si yéen rek lañ koy seetaane moo tax bu ngeen ñëwee fii rek vraiment suñu xel dafa parce que télé bii suñu télé la ngeen ñaanal yàlla ngeen dem ba nekk à la top à la ah, Sénégal incha allah te yàlla dina ko def parce que fépp xeexoo am xool leen kii ku ndaw la xool leen kii ku mag la dañuy dem ba foofu wekk leen seen te du ngeen comprendre def ay démarches taal jël seen eh, seen oto def ci essence xam nga population bi fu ñu a nekk xool leen kii ku ndaw la xool leen ku mag la loolu tamit xam nga dafay dimbali am ñoo xam tamit seen loxo jotu seen ginnaaw te yéen xool ñu ngeen di ñaanal daal en tout cas li ngeen bëgg seen télé bi yéen ko xam yàlla nañu ko yàlla defal ok bi naka la. Alaaji Diop. Alaaji lan nga ci bàyyi ba dam nga xamante ne nii moom moo fi daal di bàyyeekoo ci accident bi nga xam ne moom moo amoon bis boobu nga xam ne moo jóge woon Pikine. Bara Diop sama la man mooy suñu taaw suñu kilifa ñun marta bi ñun moo la jàngal liggéey yëpp mënu ko jàngal ñun waaw muy kilifa gu kilifa gu baax. Baye Bara kay comme man mag la mooy sama mag mi comme comme koy papa ci man daal parce que man ma yar moo ma toq yi ba ma xamoon liggéey bi yëpp lu man yàlla ngeen moom moo tax. ah te xanaa lii rek mën a tàqalee mu dee wala ma dem wala ma dee muy kilifa bu mat kilifa bu taxaw kilifa itam ah lu lu man rek wala lu mu def rek moom yàlla moom moo tax nu mën ko noonu ah nañ koy ñaanal suñu borom rek fa mu tëdd gën a fi mu jógee mag la nag mais am na 70 ans mais mag moo xam ne ñaxam la dundee waaw parce que 22 heures da ko jóg fii wala ay minuit une heure da ko jóg dem marché àll te mag la bu ko neexee du mais ba léegi àll la ñaxam lay dundee moom muy kilifa gu mat kilifa daal. ñu koy ñaanal fu mu tëddee rek gën a fi mu jóge daal la jaalee baay ba dama moo ñu bàyyi la rek nga seede ci moom yan kàddu yu seede nga mën a joxe ci moom muy kilifa gu ñàkk jaaxaan lépp loo xam ne wax na ko wala mu def ko lu mu mënu boo ko waxee teelal mënu moo ko moom ku mu nekkal sax loolu lay wax lépp loo xam ne boo ko boo ko indilee mënu ko loolu naa mënu ma ko wax caaxaan moom waxu ci dara dara dara dara caaxaan moom waxu dara waaw muy kilifa gu baax kilifa gu boo xam ne ñàkk nañ ko du dundu gaaw amaat nag moom mais dana koy ñaanal rek fa mu jëm gën a fa mu jógee dara jaaxaale mu sax salaam. d'accord naka ngeen yëgee ne Baye Bada moomu bis bi nga xam ne moom la duggoon muy biisu baara bi daal dinay def accident ba moom daal nay bokk ci ñàkk seen bakkan. man man bis yi yàq naa ko parce que man ay 11 heures laa téléphone bi demul ma ay une ma woote waat demul ma dem ba vingt une heure ma woote vingt une heure ma woote jotuma après ma woo am na ku mu laa demal ma woo kooku kooku li mu la àndal tax ma woo na ma am na bis bu am soog. mu nag ban biir mu na bunt bi jógee Pikine mu ne ko bunt boobu bis boobu daan daan ci dugg sama mag daan dugg ma mu ma da ngay dem kon Thiès hôpitalu Thiès ma dem hôpitalu Thiès wër foofu gisuma ko ma dem Njaareem gisuma ko ma dikk xombal gisuma ko ci laay doog a xam ne xam naa ci la bokk daal waaw muy fi kilifa bu baax nag ah mu bett ma trop itam bett na ma trop parce que su ma sañee dañu ànd maam moom ba dem muy toog man may dem di ñëw moom mu toog ah, mais nag suñu borom moo ko noonu te jaam moom day nangu dogal xëy na yàllaa ko tudde noonu waaw. tey lan moo la gën a marqué ci Baye Bada mi nga xam ne moo fi bàyyee ko. muy kilifa gu ma maa ngi kilifa rek ndax moo suñu lépp lépp lu ñu mën rek yàlla ak fi ñu toll dina nekk ci matt bi tax mais mënoo liggéey ndax suñu xel ak suñu xalaat ndax su suñu bokk toog man maay rakkam yu gën a nekk ci xale yoo maam mais fu ñu toll maa moom lii la mën a tàqalee bu ñu wàccee di ma tegtal di ma di ma di ma yo di ma ko def daal dama mën daal yàlla moom ko ko ñaanal rek fa mu jëm gën a fa mu jóge yàlla tax moom trop ndax la foo xam ne dugg ci bi accident bi amee dem nga ca bërëb ba mu amee wala. waaw dem naa ba egg ci oto ba waaw ba gis oto ba na mel mais ba ma gis oto ba na mel nag laa xam ne ku nekk ku ci sa mbokk nekkan da nga xam ne kii moom ah soo ko gisee xëy na dëgg la ba soo gisee nga xam ne moom yàlla ca fës moom waaw parce que oto bi lakk ba jeex tàkk moom dootu neex a nekk waaw. d'accord ba demee ba gis ka ne yow mi sa papa ci ñuy lakk ba jeex la bokk lan nga yëg foofu. métti rek parce que su ma sañoon fekk na dee mënu ñàkk sax mais bu deen ma gis ko dem ko yóbbu ko ci sama kanam sama ko papa teg ko fa su ma ko siyaare yi moo ma gënal mais nag comme gisuma ko ko damay dagal nangu dogal suñu borom na xëy suñu borom ma ko tuddee woon noonu. mooy daanukaay dooleem mosaa dem Nja Bambey taax wala Bambey séeréer wala Mbambey séeréer wala ñaaxal wala laaj ñaar yëpp bu ko dikkee fii lay dikk fii indi fi ginaar yi lu mu indi maay jaay man moom moo dem àll ba di indi may jaay mais nag suñu borom xëy la moo ko tuddee woon noonu parce que dafa dem ma yaakaar ne ma ñëw ma jaan ba jaan soo gisuma ko ma xam ne soog bu mu dégg soog bu ma xam ne ci la bokk ñu suñu suñu kilifa